israhili sadiri wa yassir li amri wa holum ibda tan min lisani yafkuhu qawli sadaka llahu alazim en jetti allah gonɗo allah mo iwata wonde allah en jetti gonɗo godal woni sirru godal hunde kala wodi e godalngal annore mouhammadin sallllahu taala alih w sallam hande en gartiɗo e nder ladde stv diaspora sénégal tv jooknayi windere nde nganndi hannde holto woni diaspora sénégal tv aduna noon ko ñalowmaaji gorle jontaaɗo fof mbele eena aynoya e invité de marque hannde mo dembabou sow dañi laade stv dañi mo ngannduɗaa o so inde muɗum haalaama diaspora jooknayi windere ina nganndi holi on gorko gorko pullo dariiɗo dadiiɗo katatte leñol naatɗo e ladde nde faami ko woni e ladde nde faami holko woni émigration faami holko woni développement leydi sénégal tawi kadi jatti muɗum ko calaga gaali gaali yo mbayde bukee jeejon kadi gasa on woni elhage malik mouhtar yero gueyi mo ganduɗa o mamoum wiyeteno elhage yero gueyi wonno ambassadeur nder ɗo e nder dakaru ndiayi kala fuutanki ina andi hol gonɗo elhage yero gueyi on woni noon taaɗi ko jin moutar yeru gey moutar yeru gey noon mo ngannduɗa o woni jinnaɗo ɓoɗum lhj mali gey kadi wonino grand monitation africain ba makko gollodirama ko tiiɗi kadi e nder raneɓe ɓaleɓe ɗiyummon hannde jogu lhj mali gey mo ngannduɗa ko président parti libéralisme sénégal jeem kanam wala Sénégal yoo yaaru yeesu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah, di leen wax ni tey macha allah diaspora Sénégal TV am na gan bu mag macha allah bu nga xam ne daal bu ñu waxee turam ah, ñeente gox yi yëpp dinañu xam ne kan mooy kii mais kan la bu Bousso invité day kan moo nekk tey ah, gan bu mag si la DSTV diaspora Sénégal TV. moy El Hadj euh, Malik Mokhtar président du parti libéralisme Sénégal djem kanam Sénégal ya yeesu mo nek tay invité Demba Abou Sow émission bu nga bu wax né faaw mais bala lolu inshallah di la jox euh, Abdoulaye Ba mi mm, euh, rokkima calmina elhaji mouhtar gueyi haysino ko hojomaji mi simmidama abdoulahi ba allah jarama a jarama dembabou so en keeɓi welamma yidirde oɗo gorko ha joddade makko wadda makko émission mo haalaten ko faate yidde lefol leom sénégal omo mérite ɗum omo tawi ɗum kadi candidature élection présidentiel 2024 parti pour libéralisme sénégal so tawii kadi o naamdima ɗum o foti jañdi ɗum nde wonno ko joom taɓalde ɓoolde o wiyetee calaaga mhm. so wiyaama noon alaji maali mbima mhm. geyi komin dolel fof no anndi mo waalo e jeeri mbimi potoore dañii haaju gonga nde wonno ko mbaroori ɗi mbaroori kadi ma ndinnoo so tawii o wii omo naamdi 2024 o laamu sénégal fof won caggal makko mbiɗa ɗum seen geyi karaɗo hannde en ka jambaɗo mune podor amna gayne gayde bi moye kan moye elhaji mali geyi ɗum noon allah jarama a jarama abdoulaye ba euh, leegi ñumini di jokko kaddu bi huga hamne may euh, suno invité de suno ganbi moy elhaji euh, mali geyi invité la dstv El Hadj Malick Gueye ñu ngi lay jox kaddu nga nuyu diaspora yi euh, tous les quatre côtés du monde ñu ngi lay seen ñoom ñëpp xam nañu kan fan mooy DSTV kan mooy DSTV diaspora Sénégal TV. Mm-hmm. parce que diaspora Sénégal TV c'est pour l'immigration pour les immigrés voilà léegi nag ñu ngi lay ñu di la jox sa wàccuwaay fii la DSTV diaspora Sénégal TV bisimilah El Hadj Malick Gueye. salaamaaleykum wa rahmatullah. waa Diaspora Sénégal TV maa ngi leen di fay di nuyu Fouta di nuyu Sénégal yëpp ci kaw ba ci suuf euh, tey nag li ma gën a kontaan loo mooy bi nga waxee ne Diaspora Sénégal TV téléphone euh, télévision émigré la euh, man nag ma yàgg topp. suma ay yu dem Dakar de France de Madagascar Je tamit yàlla nattuma ma bokk ci immigré nga xam ne immigration ma di expression africain à travers le monde soo demee ba jël tur bu ñuy wax doxandéem mooy koo xamante ne que bañul bale bañul fóot bañul raax nee na liggéey bu bon amul liggéey rek mu bàyyi ndeyam bàyyi baayam bàyyi njabootam bàyyi léppam ngir dem rek lu mu daane dooleem lu mu yore boppam ak lu mu yore njabootam ngir bañu jaay ngorom kooku tirailleur la kooku boo gisee ci sama programme nga mu ci boole nan la ñuy egg aider émigré pour ñu mën a retourner pour mën a installer seen dëkk définitivement parce que dem dëgg la bu méttee nga koy def mais tamit dem te mënatoo ñëw wala soo ñëwee delluwaat même problème bi taxoon ngay dem réglé wul moo waral dem dem dem bu bari bi rek te loolu dañ ko war solution ba xam ne suñu réew fii la ñuy

sport suñu bool yi yëpp war nañ mën a indi Sénégal loo xam ne ku ko ñam dootu bëgg a dem fenn fii rek ngay bëgg a toog ñun ñëpp di ñëw di wut si di ñu yore mais ñu ne duñu dem di wàllu yàlla feneen la ñeneen am. macha allah El Hadj euh, Malick Ndiaye euh, président du parti libéralisme Sénégal euh, ginnaaw nga nuyu sa nuyu bu njëkk.

xam kan moy El Hadj Malick mais sabab bi fu muy commencé fu sabab bi fu mu commencé mooy euh, dama lay jox ben exemple dafa am ben américain bu tuddoon Alex Haley mo bind livre bu wax Kunta Kinte Roots wa koku bi nga xamné esclavage am na moom dafa nek Amérique ne dafa bëgg xol ay racines motax ñu livre Roots rutsu moy racine ci la top di wër di wër di wër di wër ba découvrir ne maamam gambi la jóge Kunta Kinte ci la def film bi bind livre bi mu nek best seller man sama mam Yoro gay mo nekkoon docteur mam aladi malik sama bàjjen suwaadu pendam eh, tawam bu jigen mu tuddee ko euh Alaaji Seyd Nourou moom lañ ko bàyyele moo ko jox waa kër maam alaaji Malick si góor gu ñuy wax góor gi ëmmat loo ñu am si doom bu ñuy wax ndey yaasin loo bokk ak sëñ Mbàkke soxna loo maam soxna maam Faati Mbàkke Marema loo sëñ Moodu Moustapha sëñ Mbàkke soxna Lo ñun foofu lañu bokkaat ñoom ñu bokkaat ak ak bu mag bi ci Bara Madi ak Wura Madi ci Calaaga Penda bu yëbba boleh boole ñu si ñu bax sama badjan dama daan toog toujours di dégg muy wax calaaga ba pare waa calaaga naa bi itam daan ñëw suñu kër lu bari ma ne nag léegi man euh, il faut que ma dem calaaga yàlla di def ma nekk Paris ci hôtel bu noo George V am benn chauffeur bu ma jël Halpulaar la mu ne ma man léegi laa wàccee ku ñuy wax Thierno Nourou bu Louga waaye moom waa calaaga la ma ne kooku de bëgg naa ko gis te sa kooku fi mu jógee nag sama dëkku maam la. ma woo ma woo Thierno te Thierno kilifa bu mag la. ma ne ko foo nekk Thierno mu wax moom ma ne ko damay ñëw mu ne ma déedéet comme yow calaaga nga dëkk. man may ñew fekk si la man ku dëkk calaaga ma lay fekk si wan mu mbëggeel bu mu am si calaaga xoola rek oyof ak oyof bi keroog bi ma gisee cerno mu ñëw ma ne ko cerno de munoon nga ma bàyyi ma ñëw tal keroog la ñu saafante xamante jàppante mu ne ma dafa am gàmmu gi am calaaga at bu jot ma ne ko ren de su ma fekkee Sénégal dinaa ñëw fekkee gàmmu gi yalla def mu fekk ma senegal ma dem jalaga moy bis bi ma ñëkk dem jalaga bi ma demé tamit ñu téru mo ma fekk fa Sahaba job sama jigéen tay, xam ne waaw koo sahaba job euh ma fekk fa tamit ki sar Pend sar fekk ño xam ne ak ñu bari am ci ño sax sama kër maam ñu far wallaahi ma ñëw gis samay mbokk ñu dalal ma yëkkati ma si kaw teral ma yëkkati fi Cheikh Omar julli ci ginnaaw ñu daggal ma fa suuf jox wala ah, julloon takkusaan wallaahi jox ma ko ne ma daal lii sa cëru maam la yow yaa ko moom boobu tey nag ndeysaan am xale yi doon def soixante-douze heures calaaga yi tuddee ma ko ma demaat ànd ak ñoom tamit calaaga ànd ak accawele hmm. ñu demaat calaaga saa yi bari tamit may jugal sama bopp di dem di seeti waa calaaga ba keroog nag si suñu parti bi ñu tuddee ko appel de calaaga hmm. parti pour le libéralisme ñu dem calaaga def lancement vraiment ñu am si loo xam ne daal kawe na sax suñu njort ndax calaaga yëpp génn nañu tàllal ñu loxo jox nu seen baat jox nu seen bopp jox nu seen lépp xamal nu ne ñi ngi sa ginnaaw fii calaaga cent cent lan la fi jom loolu nag nekk lu rëy su ñun kon te tey sooy dem di jëli moom rek boo demee da fay fekk loo xam ne sa li olof bi wax ne luy sëddi wéttal rek maama si dàq dëgg yàlla ba ma demee sama dëkku maam tamit kontaan naa ndax ña fa fekk ay nitu yàlla la ñu jàng la ñu xam julli sàmm bay liggéey jaamu yàlla wax dëgg yàlla gisuma fa leneen lu nu may xeebee wala lu nu leen di xeebee euh, falilaa alhamdu El Hadj Malick président du parti libéralisme macha allah li ngay jot wax bi macha allah vraiment kontan nañu xam nañu bu baax li nga wax comprendre nañu bu baax tamit li nga wax bala ma ñew si politique bi tuuti xam naa laaj yi tey du bare parce que xam na dangaa am ay soxla yu bari euh, ginnaaw bu nga defee par exemple sa édite secondaire ak primaire bu nga génnee foofu par exemple si émigration fan nga jaar ba nga ñëw Las Palmas bala nga jógee Las Palmas bala ngay jëm Europe sa jaar jaar bi. émigration jaar mooy man bi ma Dakar. dama dem euh, Mauritanie. parce que ci sama côté yaay ñoom waa Mauritanie la ah. man sama yaay mi ngi tudd Zeynab Mint ay bokk ci bokk ci tàndaxe mhm. ci xeet bu ñuy wax tàndaxe euh, sunu maam Serigne tàndaxe sunu maam la ñu koy am Rabat Fall Ulmu Taali ku ne dégg nga ci waxtaan bi sëñ Touba demee gànnaar mi mhm. ngi daloon ci waa kër mu Taali nekk ñoom tamit ay nit yu baax ay nit yu am cër ba pare bëgg nitu yàlla ndax nitu yàlla képp ku ko dalal euh, ngir yàlla euh, loolu ndimbalu yàlla la booleeg sunu maam tamit Ahmad Tandaxe bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gunge woon sëñ Touba bi muy dem Touba loolu tamit euh, di suñu wàllu moo gis tey màggal gi ren naar yi ñëwoon ñu ànd ak ñoom wallaay waa Touba teral ñu jox ñu résidence su Serigne teral ñu yëkkatu ñu jox ñu sunu wàccuwaay ngir yàlla ak sunu maam yi la ak sëñ mag bi léegi bi ma jógee foofu ma dem Nouadhibou mm-hmm. après Nouadhibou ma dem Maroc Maroc ci la dem Las Palmas yalla dimbali ma fofu quelque temps ma am hotel bo xam man ko di fa liggéey ci si jaamu yalla tamit hmm. kilifa yu bari dal fi ñew bobu Las Palmas bu mel comme Dubai ñëpp fofu lañ doon bëgg dem yalla mëna ñu fa gan nit ñi di fa ñew ñuy jàppalante ak ñom après dem na Madrid def na île bu ñu wax Lanzarote def na Tenerife def hmm. na Barcelone def naa Paris def naa Los Angeles. dem na New York dem naa Allemagne après si laa Europe nag dem tenter ci Asie. voilà fële tamit. Euh, Afrique centrale Afrique voilà déjà ak événement bi am récemment avec Mbao Bam bi nga xam ne moo nekkoon ministre de l'intérieur Omar Bongo ah. ñoo ànd dem élection ak Ali comme lii xew nii rek xewoon fa Mbao Bam gagné élection yi Ali def coup d'état électoral xëccoo bi bari mais tu sais que tamit dafa nekkoon euh, pacifiste hmm. boo xam ne su ko wax rek mun a leen nañ bàyyi noonu comme te lii am na duñu xëccoo bëggul rek turu Gabon ba ci récemment discours bi président bi jël sax mi ngi ko ciy tudd moom ci pacifisme donc yooyu yëpp ay expérience politique la yoo xam ne jaar nañ fa euh, jaar nañu tamit Dubaï dem nañ Arabie Saoudite def nañ ko voilà wër nañu daal àdduna expérience bu ndaw bi ñu am nag moo tax ñu ne dañu bëgg ku ne namp sa dëkk li nga xam euh, bul ko xeeb parce que mën nga xeeb euh, xal bu ndaw mu daal sa daay te bul xeeb li nga am sa dëkk loo am rek indil ko bul même su amee ku indi avion yow soo yoree mbege sax indi leen sa dëkk ku si ne sa yéene rek la yàlla di fay donc kon ñun yéene bi ñu am mooy li ñu xam ak partenaires yi ñu am ñu bëgg a collaborer ak ñoom liggéey Sénégal si agriculture mm-hmm. liggéey ci. ci pêche ci pêche liggéey ci anam yëpp. yi nga xam ne sénégalais yi tamit bëgg nañu liggéey ñu ci bari li ñu gisul rek lu ñu def mais koo ci wax kaay nga tegal ko lu leer mën na ñëw ànd ak yow. Mhm. ngeen avancé na sénégalais boo gis kanam rek la bëgg a jëm. macha allah. ci euh, El Hadj Malick vraiment content nañu lool. et tamit euh, am nañu xam-xam li nga jotoon parce que émigration. nit buy wax yow da ngay am xam-xam yow lan nga mun a demee wala keneen ku ko déglu dina am dina xam ban genre lay def pour ko à côté l'immigration leneen aussi doguma maa ngi wax xale yi hmm. pour ñu bañ a tenter hmm. pour di dem si géej ci ñu arrêté ko parce que Europe bu meloon message important ak Europe bi bokkul hmm. Europe boo njëkk ba sax jarul jël gaal asamaak Europe bi nga xam ne ñoom seen bopp ñu ngi daw di wut ci Afrique récemment France rek bi ko Niger bi génnee ñoom ñu ngi def lu ne rek mën a toog Afrique donc loolu rek war nañu may xel mm-hmm. pour que ñun aussi ñu mën a maintenir toog suñu réew jàppalante ak xale yi ñu am si ñu jàpp pour mën a toog si réew mi ngir mën a liggéey ña nekk foofu aussi di nekk ñu rationnel

alaji mali gey fuutankoɓe nani alaji mali gey yo allah rene calaganaɓe malik nani datir élection février 2024 min on yon pin yon yewlen jonna de ngeen wax bi mhm. aussi gis ngeen ko lu mu wallahi amul mhm. du Touba du du du mhm. wax lu yi ko yëkkati liggéey avant Sénégal. wallaahi avant Sénégal dafa tardé de. Mhm. dem ba Sénégal dafa tardé. lool il faut mu mel ne Malick ñëw. mel na ñoom jàmba taxaw changé ko. Mhm. loolu moo tax ma koy wax euh, l'homme du changement. loolu mooy force eh, am na alhamdulilah rabbil aalamiin waa diaspora. Mhm. ala gis ngeen alaji Malick. wallaahi moom du ragal du tiit. et puis dafa mérité loolu. pour mu loxam mu jëpp pour bugg sénégal pour mu ñëw faru loolu macha allah da nga soobe yàlla insha allah allah jaarama a jaarama bambagal fayida e ablay ba euh, inchallah haade mi ruttitade élage mali guey en calmini bandiraɓe fof wowɓe yebde émission e dembabou sow fawro fouta kono tan eɗen calmini ɗo yete oumar haruna dogal mm. uh, seydi so pullo ko gorko pullo mo madina gounance wuuro lamorgo uh, wuuro duwortengo malnertengo wuuro alhaji ma seydi wa madina gounance kono noon uh, oumar haruna dogal seydi so o woni toto koto leydi france walla e espagne euh, on ndigil ndigil ɗum noon euh, oumar euh, harun dongal min calmini min juurimama ko noonne kadi calminirten omo ganduɗa ko mamadou mamoudou malor gorko mo cewel awa gaale ewa gonɗo toyti e daral fora gorko pullo moƴƴo e jontaɗo dariɗo kadi cuusɗo caas kadi ne yiɗi kadi gendiyankagal kadi ne yiɗi gendi mum kadi ne yiɗi moƴƴuɓe eyyi nde wonno jontaɗo yo yiit moƴƴuɓe jontaɗo yo yiit laamɓe mm. jontaɗo kadi yo yiit kadi jambareɓe mm-hmm. ɗum noon mamadou mamoudou malor eh, gorko mo cewel awa gaale e seydi malor min calmini min juurimama e eh, min calminiɗo hede sokhna famatal toon to plan diakay eɗen calmini o no fewi eɗen juuromo voilà prési elhaji mali gueye suno benen laaca ginnaaw bu nga def sa émigration yëpp macha allah parcours très riche. Mhm. bu nga jógee Mauritanie ba nga dem Maroc Las Palmas ba nga demee si Europe ba nga actuellement ba nga nekk fale si waa dëkk arab yi voilà euh, lan nga lañ si mën a si wax lan moo tax nga jublu si wàllu politique lan nga gis bon ban cause ba nga xam ne daal nga woone nit yi yow dugg nga si politique. soo jógee sa dëkk dem di wàlliyaan dafa fekk ne fi nga jógee naataange bi nga si bëgg amuloo mais soo demee gis progrès yi am foofu nga gis naataange bi fa am su nekkee patriote nga da nga yéene sa réew loolu moo tax tey su ma neexee léegi su ma neexee léegi dem fanaani Dubaï mm-hmm. su ma neexee dem fanaani Europe mm-hmm. su ma neexee dem fanaani am na mm-hmm. mais euh, ak fu ma mun munti nekk man lolu damay bëgg Sénégal am ko ni Arabie Saoudite mel dama ko yéene Sénégal mel ko ni dubai mel dama yéene Sénégal mel ko li ñoom am dama ko yéene waa Sénégal loolu moo tax ma ne dinaa indi li ma fa jot a gis pour que mettre ko en valeur pour Sénégalais yi mën si ko loolu sama yéene la tamit pare pour ànd képp koo xam dama bëgg Sénégal jëm kanam Euh, parti politique bi par exemple say militant parce que am na am nga siège fii si Dakar wala am nga par exemple tas nga parti bi ci biir Fouta yi wala ci biir ko gox parti bi mi ngi am siège bi Médina rue 11 angle Corniche foofu la suñu siège parti nekk. parti yooyu il faut mu am siège. parti bu moom xam nga ne moom kii moom lu muy wax nii dëggale si bopp. ba pare parti bi reconnaître nañ ko bokk nañ ci invité nañu si dialogue bi demoon nañ ci dialogue bi bokkoon nañ ci ñi participer pour dialoguer pour que Sénégal am jàmm. pour que Sénégal a problème. parti yi ci dialogue bi ñun bokk nañ ci wax nañ suñu xalaat aussi. suñu xalaat yëpp moo doon rek. pour que ñun ñëpp ñu booloo ànd defar Sénégal. loolu de lañ soxla Sénégal euh, programme parrainage bi. Eh, yaa ngi si parrainage bi yaa ngi si programme bi. waaw waaw comme dañu waxoon ne di joxe woon nañ date bi ñu ko war a joxe après ñu reculé ko bon ñun préparé nañ suñu yëpp ñu ngi xaar pour ñu génne fiche yi pour ñu mën a remplir parrainage yi noo xamante ne que duñ ko defar ba pare après ñu indiwaat yeneen fiche ñu changé ay signature bi tu vois. ñu dañu bëgg def ay parrainage directement nii am ñëpp kenn ku si ne ñëw jàppale ñu am suñu parrainage comme ni ñu ko bëggee def présenté pour déglu mhm. suñu. construction amener sur le précipicé élection euh, ablay ba euh, ɗum noon banndiraaɓe juuɗɓe jiidaaɓe jeydaaɓe renndaaɓe nguurdam ina wayno invité meɗen haa jooni ko kañum euh, jokkondirɗen kañum kalata eɗen naamno ɗum no jaabtoo woni lhage mali guey caggal nde o haali jibinande makko lasli makko to calaaga caggal nden naamdi ɗo mo tigi tigi jagde makko ɗo rewi eywa sababuji kadi ne namdi ɗan no holno yeehi ha ɓooyi ko yirtindire ɓesmu makko calaga o haali hakkude makko ceernour cheikh moutaga ɗa ha mhm. tonto leydi france ɗon woni damal udditago ngo kono ittata kay kay jiidengal ngal ɗum koko anda guila ko ɓooyi kono ko ɗon woni sababu yirdirtago ngo waɗi haw wawi jokkodirde hannde e calaga e nder émigration makko o waɗi hen ko foti wadde ko kono noon miijo ruttanimo leydi makko sénégal jatte makko o wi pourquoi pas o euh, sampa mbaggu makko toon to gewu lamba anide présidentiel 2024 inchallah mm. ujun ɗiɗi e nogasi e nayyi tawi ko parti makko mo wiyata parti libéralisme sénégal yo yaaru yesso o ari o arini meɗen hen ɗum ɗo foof firti ko ko nelaɗo salah sallam wino wonde noon ɗanngal walla jeehe dow leydi ndi beele dañon gande beele gandon gande mbele dañon ko ngannduɗon ɗum ɗo gorko ina foti wadde ɗum eywa ngannda ɗamnoɗa daña sa dañani jawdi dañ gandal sa daña sa dañi gandal ne kadi a daña yimɓene kadi ko ɓeydare ɗum noon e, ko ɗo jarten taw élage mali gueyi en namdimamo noon e siége makko o haali en namdimamo kadi omone préparation inchallahu taala wadde parénage inchallah ɗum ɗo fof en namdimamo ɗum leegui élage e, mali gueyi inchallah xamnane am muguise programme pour def en tant que leader politique def am li nga soxla def am li nga bëgg ku ne def am base. Hmm. mais xëy sa base euh, actuellement mu ngi tas Fuuta wala ñu ngi soog a commencé am Fuuta. Hmm. wala yaa ngi programmé def spécialement tournée ba nga xam ne campagne politiquement. Euh, pour gis mbokk yëpp ci biir Fouta si wàllu ji si jër gi ndax yow da ngaa programmé loolu pour l'instant wala yaa ngi si yaa ngi si en action pour préparer ni si parce que déjà bi ñu demee Fouta rek ouverture bi indi lii tey Fouta lañ ko amee ndax man ndekete yow sama kër maam nga dëkk man xaw ma ko woon ma demee Fouta te fekk ne avant may dem xamante woon naa góor gi parce que xamoon naa ne moo mag ci Jalaaga xam na ñu dëkk Jalaaga bi ma ñëwee fii seet si ko mu wax ma ne ma xam naa sa maam xam naa sa pap xam naa seen kër Jalaaga naabe nga Jalaaga nga dëkk doo gan calaaga ma dem imam bi waxaat ma loolu mu boole jilaat suuf jox ma hmm. confirmé ma ne fii sa dëkk la donc moo tax ñun parti bi ñu tuddee appel bi en tant que président parti ma tuddee ko ko appel de Thialaga. waaw wala loolu la ko tuddee première action moo di leen appel de Thialaga la ko tuddee. foofu nag lay ñëw pas bi jox ko ñaan vraiment moom am Alay Seydou Tall ñoo nekkuloo plus de vingt xam fi Alay Seydou Tall kenn gënu ko xam Alay Seydou Tall. voilà nee na moom depuis soixante onze la ko indi mag ñi nag dañu baax. Mm-hmm. xam nga mag ñi dañu doon jàppalante si diine. kenn ku si ne am na fu la teg te fu xaar fa yàlla. ba mu fekk la fa. kon te tey dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin maa ngi wax jaaji taal tamit suñu xarit bi. nga xam ne tey màggal Tuuba taxaw noonu dalal. macha allah ci sëñ am sa. vraiment defal ma ay bernde. ñu koy sant tamit di ko gërëm. ñu wëlëree di xale xale bu baax jaaji faal. yalla na yalla fay. may fay mbokku talib yëpp jërëjëf. kontaan nañ El Hadj Malick Gueye xëy bientôt mu paré ci l'émission bi incha allah euh, dañu doon bëggoon euh man ak yow yóbbu nga ma Touba gis na lepp lu nekk foofu vraiment am nañ am naa ci mbégte lool même gars yi suivre. Euh, à à propos par exemple euh, au niveau de réseaux sociaux ñom ñep kontaan nañu bëgg nañu. sunu sunu dem bi yoon euh, Magal Touba. vraiment euh, man duma ko mos a fàtte incha allah si àdduna euh, mais yow gis naa sa na gis naa sa mbokku yi teral nañu teral bu nga xam ne daal kenn mënu wax fu mu yem. macha allah damaa bëggoon laajte nag yow. ban lien entre parenthèses yow ak naar yi lan nga si mën si wax naar yi ak seen maam lu ñu doon jokkoo ak Serigne Touba. loolu rek la la bëggoon nga nga revenir surtout. waaw mooy comme li ma la waxoon nag xam nga naar yi. Hmm. téere boobu nga doon gis noonu. téere gis naa téere yi. boobu mi ngi tudd tontu naar yi. ah tontu naar moo ko mool en 1979. Ah, yàlla def waaw yàlla def téere boobu tey ñu nekk si man. Ah. waaw tontu naar yi nag sunu maam yi ñoo si tagg sëñ bu mag bi di wax si jikkoom yi baax yëpp li ñu xam si lu baax ci sëriñ bi. yëpp wax nañ ko ci téere boobu naar yi nag xam nga naar du xool matériel si nit naar lu muy xool dafa bari worma te naar ku yàlla teral daf lay teral te naar dafay topp dafay topp euh, dons bu yàlla may nit ki mm-hmm. te dafay gëb barke ndax keroog bu ma ñëwee wax dëgg yàlla ñu xam ne kii surtout mu taali la ñoom ñaap dañoo dem toog ci suuf ne duñu toog a man ci kaw te loolu yëpp war ma rek la man aw ma dara lu tax ñu may waaye ba xamee fi ma bokk rek ma jox cër boo xam ne tey loolu nag man euh, dafa daw suma yaram daf ma gën a delloowaat ci ñoom gën ma ñaaxaat sama mbëggeel ci ñoom parce nit bëggul lu ko ku ko bëgg nit ku ko yëg bëgg ko fonk ko yëkkati ko rek yaa ko moom mais ku ko toroxal tuutil ko bëgg ko teddadil rek mu toxo waaw nit moom bu lay daw rek xamal ne yëgul boppam yëgul baatinam yëgul martabaam si yow mais nit ki fa muy yëgee boppam moom moo fay daw di ko wuti kenn du ko fa woo moo tax euh, li sëñ bi wax ne sa nafsin bi laa darer yi boo gisee sëñ Tuubaa ñëpp di daw di koy wuti mu ne dama am njariñ boo xam ne amul lor lor rek moo tax te nit koo gis njariñ la bëgg waaye bëggul lu ko lor allah jarama a jarama el hadj mali gueye jërëjëf euh, li nga jot wax ni euh, sabab bu reuy bu nga xam ne lu tax euh, mo ñoom naar yi chaque année di ñëw magal touba ku nga xam comme li nga doon wax ah, ahmadou tandakeyo voilà wax nga ko si léegi mm. voilà Euh, parce que Sénégal Sénégal ñëpp ñoo bokk ndey ak baay gis nga sunu wali yu yi hmm. ah ñoom duñu wax rek sunu waa kër rek laa si am jabar wala non non ñoom dañu doon séyante partout hmm. loolu yëpp pour njokk nekk Sénégal pour mu nekk euh, euh, benn nit hmm. loolu moo tax bu ñu wax Sénégal kenn mënu koo xar ñaar te loolu dégg la adandi asko lien diw e wuro madiw a faamide ɗon ha jasan ha jurbel daaro kuddus hmm? lien entre parentése wa touba ak wa jasan hmm? ak wa daaro kuddus xam nga ku ñu wax Serigne Ndiaga Is Diop voilà Serigne Kokki Kokki waaw xam nga Elimani Boubacara Kane mhm. temps buñ doon moo doon tolloo ak ñoom Serigne Ndiaga Is Diop Serigne Ndiaga Is Kokki nag kooku moo jur Fatou Is kooku moo jur Ndiaga Diop kooku moo jur Bay maanaam Mariam Diop kooku mo jur Penda Buya hmm? waaw pende nak mo soxna Madiou imam voilà pende mo jur Ibrahima Madiou ibrahim Ibrahim mu ngi reposé fu hmm. waaw Ibrahima mo jur Baydi Ibrahima mo jur wax Sadio Ba jur wax Ba comme ku ma doon gis nga Penda Bouyoba bu mhm. Ibrahima Madiou kooku moo jur Fatou Mbacké Fatou Mbacké doomu Serigne Touba la est-ce que ku ñu wax hmm, encore kii Xarimaam euh, Diop bu Serigne Ndiaga Is Diop Xarimaam mhm. Diop moo jur Aminata Lo Aminata Lo jur Moustapha Mbacké Moustapha Mbacké mooy taawu Serigne Touba Mbacké mhm. est-ce que yaa comprendre nga lien boobu il faut ñu waxal xale yi tey Sénégal kenn mënu ko xar ñaar kenn mënu ko taal Sénégal yëpp ñoo bokk ndey ak baay macha allah gis nga waa Njaasaan waa Touba waa Daaru Xuddus ak waa Fuuta ñun si la si si lañ bokk xam mhm. ba Penda Ba Penda Ba mo jur Jene Penda Jene Penda mo jur Mariam jene Ba Mariam jene mo jur Gidaaru Mariam Gidaaru Mariam mo jur Idriss Gidaaru mooy sama papa

moo jur Serigne Baara Jakate Sadio Ba balee bu ñu doon wax saajo Ba bu Ibrahima Madiou Amadou Hamme. Mhm. Imam Madiou Imam Madiou. waaw kooku moo jur Modou Kunte Fati Fall. gis nga waa Ndiassane ñu ngi di dugg dañu duggee si beneen dañu dugg duggee si beneen jigéen. waaw côté jigéen la ñuy duggee. waa Ndiassane. Modou Kunte boobu moo jur Mamadou Kunte. mamadou kounta mo jur mabou kounta ak kuñ wax bekkay kounta léegi wa njaasaan ñewna kuñ wax fati fall fati fall mhm. doomu sadio baba ibrahima madou me fati fall mo jur soxna fati cierno ak cheikh fati fall cheikh fati fall mo jur serigne mouass mbakke wallahi serigne mouass mbakke falé ci daru moussa Fatou Issé Diop bu Serigne Ndiaga Is moo jur Thierno Birahim Mbacké hmm. kooku ka la ñu wax ndaamal daaw lii yëpp pour woone voilà ah lii rek nit xale yi actuellement dangaa war a xam ne senegal ñoo bokk bokkandi ak baay hmm. billaahi wallaahi waa Alaaji Maalik Usmaan bu Dramane Siré bu Maalik Si Euh, yaayu ñoom Abdou azid Dabakh dañu jógee si waa Jolof mhm. ñun tamit foo la ñu bokk xam nga soxna Safet Aram Bonko ñam ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Oumar Foutiyou Tall ah moom soxnaam ñëkkul si Fouta mhm. ak Mali rek Guinée Nigeria sëriñ yu mag yi wali yu mag yi kàngam yi démb yi ñu xam nga lu tax ñu def lii pour wone nit yi euh, yàlla fu mu wax daal jullit ay mbokk lañ mm-hmm. de question man alpulaar rek alpulaar lay jël de mm-hmm. question man olof laa rek olof laay jël de question man séeréer séeréer la jël non ñoom duñu du doxee loolu noonu fekk loolu loolu lañ dox woon lii euh, entre yenn parenthèse yii du am léegi nag waa Njaasaan mu ngi fi waa Wuro Fuuta Maadi mu ngi fi mm-hmm. waa Daaru Musti mu ngi fi waa Daaru Moussa mu ngi fi waa Touba mu ngi fi lii waa Tiwaawoon waa Tiwaawoon mu ngi fi lii yëpp def ñu woonee rek Sénégal ñoo bokkale ak baay ɗum noon bandiraɓe sehilaaɓe min euh, ko ɗum ɗo wonno komi puɗɗino yewtande moɗon euh, leegi ma ngi delluwa si élage ma liggey euh, lan nga gisee politique démb ak acteur politique Sénégal par exemple lu mu mel tey politique démb bi ak tey par exemple ñun moom fekkuñu jamono Senghor mais fekk nañu au moins jamono Abdou Diouf mooy des années par exemple 89, 92, neuf hamga, vingt douze yooyu xam nga Abdoulaye Wade fekk nañu ko xam nga yow politique boobu ak actuel fu ñu nekk nii Sénégal ban différence nga gis. politique bi xam nga àdduna sax mooy mooy am ay haut ak ay bas. Mm-hmm. dëgg la àdduna lépp loo fi fekk rek su yàggee di fi si neex. di nga ci fekkee lu si naqari loolu ak àdduna moo bokk yem moo tax euh, benn njiit jarut a euh, ku ci ne tamit am na lu nga def tamit si lu baax mm-hmm. am na si loo xam ne soo tombeek loolu rek ci mm-hmm. obligé nga gérer sengoor li mu tombeloon ñun tombe nañu Senghor boo xam ne ñun di nekkee xale mm-hmm. lépp luy suñu fourniture état bi moo nu ko doon jox jox suñu livre ñoo jox suñu ay encre ñoo jox ay cahier jox ay uniforme ñun boobu mu tombee xale boo xam ne y avait tout hmm. waaw boutique yi boo demee dafa mel ni comme supermarché Europe yi y avait des Sonadis ñun loolu fekkee nañ ko fi fekkee nañ fi ay Morale Prom yoo xam ne euh, Sénégal dafa meloon ni comme Europe ville de Dakar boo fa mosoon dugg avenue William Ponty boo demee Europe ak ponti bu njëkk bi da ngay foo ne Europe nga nekk. tellement que dakaar dafa tuuti woon. am soit tey nekkaan na si beneen action ñu koy seetal. wallaay tey Sénégal rafet donc euh, mu am entretien melul comme ni mu meloon. Mm-hmm. Abdou Diouf aussi bi mu ñëwee. dafa tombeek sécheresse. wallaay dafa toog lu yàgg tawul. est que bu gisee mbënd yi am yëpp. dafa yàgg tawul nit ñi dem dëkk foo xam ne.

mais ci président Macky aussi commencé na affaire yi mais ba ci fin bi problème mu Ousmane Sonko problème mu politique problème mu xale yi yooyu yëpp am na mais tam daf fi jàll rek ci nett rek lay mujje ñu xalaat Sénégal buy avancer parce que du yem fii. donc mais man li may conseiller politiciens yi. Mm-hmm. il faut ñuy def politique bu moderne. man bëgg naa bu vote jotee. dañuy sangu ba set. xeeñ seen parfum. dem rang normal. voté dem toog sa kanamu télévision ñu jénnee résultat yi ñu xam ne kii la Sénégalais yi bëgg moom la fal ñu fal ko moom tamit mu xam ne moomul réew mi dañ ko fal pour mu liggéeyal ñu ko fal mu liggéeyal leen su paree delloo leen seen ñaari mandat dem keneen ñëw tu vois mu nekk loo xam ne daal affaire bu civilisé la parce que ñun aussi nit ku ñuul dama gis ne toujours dañu bëgg affaire u baar baar affaire u xeex affaire sànnante ay xeer jamante ay paaka jël ay lacrymogène sax police jaratul mu koy jënd parce que il suffit ñu yar xale yi depuis bas âge waxtaan ak ñoom wax leen fi ñuy jaar rek dañu jénnati ci mbedd mi benn politicien warul jël ay doomu jàmbur di leen loo pour génn dem di leen sacrifier yi déglu leen am solo na xam nga yooyu yooyu politiciens yi dañ ko war a arrêté mhm. parce que tam bëgg naa dara rek. lu hmm. tax si may pousser ay doomu hmm. jàmbur. ñu leen di rey bu ëllëgee man ma am lu ma bëgg sama conscience sa warul tranquille xale yi il faut nga conseiller leen xamal leen ne lii ñuy wut pour bëgg a jiite rek nekkul pour am dara mais c'est pour wan xale yi yoon bu ñu jaar pour ñoom tam ñu mën a réussir. su fekkee loolu la jarul xuloo jarul xeex. donc man daal loolu laa amoon su lu may wax ci loolu il faut que politiciens yi daal xam ne duñu ay noon bokkuñu parti rek taxul ñu nekk ay noon ku nekk da am sa vision boo indee sa vision sax ma booleeg sama bos ñu bokk ànd pour defar réew loolu tamit lu am solo la vraiment bon conseil euh, woni conseil woni waaju aduna allah jarama on jarama bandiraɓe ɓe ɓoyata men mbaynodira élage mali guey vraiment ñu ngi leen di jëf jëfal par ce que xam naa ne il faut ñu bàyyi la parce que da nga am soxla yi bare bare bare mm-hmm. mais balaa loolu inchallah euh, ñu ngi nuyu sa compagnon mooy euh, Moussa Touré vraiment macha allah vraiment baax la tamit euh, <laughs> waaw direct bu ñu bu ñu neexee sax ñoo ko directeur de campagne mm-hmm. voilà sama compagnon ñoo ñoo àndoon vraiment Touba euh, vraiment Touba tamit sha allah euh, ñu ngi nuyu ku nga xam ne mooy euh, Fall jabaram Aïssé vraiment man duma leen di parce que dañu lek lek naan yow defal nank sino sunu nous day de Diadji Fall l'homme fort vraiment. l'homme courageux vraiment sa xari la lool man vraiment Diadji sa la la mm, vraiment ak fuñu nous ñu ngi ak suñu sërigne kuñu kuñu demoon nuyuji mooy sërigne abdourahim ndiaye fay si jéemul ñu ngi koy nuyu vraiment ñu ñaan yàlla daal incha allah ñu fekkee ay déwén déwén déwén ablaye ñu rokkuma kongol tan ànd ne mbay no ndireene bandiraɓe par ce que ngoppiteen elhaj mali guey par ce que mo jogui haajuji kewɗi e ndeer dakar euh, technicien meɗen jogui régie o ma inchallah hono samba diop machallah vraimentah voilà comme que diaspora mum te gawara ko mantude wa diaspora ɓe mam mante ñom ñoyi buuru diaspora ɓe ah. kuma ko wa mante jappale rek nga jom ca kanam donc mante yar yar yeso waw wallahi wallahi ɗum noon hélas mali gueye wimono sénégal yo yaaru yeeso hélas mali gueye weeɗimoɗon jungo inchallah hitaande ujune ɗiɗi e noagase nayyi candidature inchallahu taala présidentiel omo fiɓi addude mbaggu makko sampude inchallah ƴeewe gew holli ɓoowo hen ko wawi wonde fof noon hmm. yo allah waɗ moƴƴere waɗa ɓural waɗa ɓeydare waɗa sutra ni ko jabaragal ni ko yonteede wallahi liisi so yefu danalla yefu woni niti jambarla yowga indi par exemple sa programme ngana yo damay dem élection présidentiel te yo am gasi gom gom li ngay wax ni ey ɗum koye l'impossible ne pas calaaga man bi ma demee calaaga gëm naa ne bi man sama maam bi mu jugee calaaga ñëw dakaar xam naa ne docteur jàngu ko calaaga hmm. nan la nan la def il s'est débrouillé hmm. ba nekk docteur u maam alaaji Malick moom ak la daan teg ñoo nekkoon ñaari docteur yu gën a mag dem na Madagascar dem na fu nekk doomam yi mu am man sama papa ville de Dakar la juddoo donc yàlla maye ko ay teraanga ay kër yu bari am na ko fii donc impôt impôt du pétrole ki ko njëkk dem Euh, seeti Sénégal calaaga naabe la te sëñ Abdou Aziz moo ko jël tuddal ko boppam tuddee ko boppam ñu koy Abdou Aziz Guèye mu nekk fii impôt domaine nekk ak ñoom moom tam calaaga naabe la wallaay donc euh, ah mais dañuy wax alhamdulilah <laughs> alhamdulilah alhamdulilah ñun ñu ngi sant waa calaaga bu baax te ñu ngi ñaan aussi keroog dem nañu gis nañ calaaga mais calaaga village bu ñu mën a développé la foo xam ne am na ndox am na lépp inchallah ñu ngi lay talalal loxo rek inchallah ñu lay talalal loxo inchallah rab ñëpp dinañu si jàppalante aduna noonu rek amul solo jërëjëf kon euh, bandiraaɓe sehilaaɓe euh, ami ɓoyataa min mbaynondiree moon pour woppirde élagement liggéey amin nganndi inchallahu rabbi omo jogii haajuji e jamma heen feewi no feewi no feewi eywa hannde duusannoomeɗen

ina ardi noon e musidɗo muɗum no wiye moussa gouré en calmini noon denndangal jokonayi windere kala ɗo mbawi wonde ene gonni fof min calmini min juuri on en jejjita noon ah, sérif abba mo ngannduɗa ko kañum woni dg e ɗo e dstv diaspora sénégal tv goɗɗo toyte e lappol jillu ceerno nu cheikh mumtagal ɗa toon to leydi oro ceeno nour min calimini min juurima min ñaagi mamo duwaw nour cheikh noon tagaɗa ha cobaral fitital ceeno nour jeɗaɗo e jamanu muɗum gowaɗo e jamanu muɗum nafodiraɗo e jamanu muɗum teddinɗo e jam nafodir teddidiraɗo kadi e jamanu muɗum moƴƴuɗo kadi teddini kadi e jamanu muɗum mo ganduɗa o kadi ko cheikh mo tagaɗa ha o yeɓɓi koye felo muɗum nde wonno cheikh mo tagaɗa ha eywa kumannoɗo dewle e nder julɓe weltinirtuno welt weltitirtunoɗo yimɓe a faami de heywa mm. ñammintunoɗo miskineɓe holtitunoɓe holnoɓe ɗum noon chekh notagaɗa ha mbarodi ko ɗum ko waɗatno ceerno muru chekh notagaɗa ha ari dartimen gon feɗo nana europe o nana ga e nder leysi mana leyɗele meɗen kalɗo yehi ko jokkodirde yimɓeɓe yo jiddu yimma e baaba yo gandu dini mum yo gandu kadi hol moƴƴi meɗen yo gandu chekh mo ɗen fuccitalo maade jumaaji maade aniide jamaaji ko ɗum tawo ceero muuro ceeo mumtaka ɗa ha woni ko dare ni ɗum noon eɗen calmiɗe no juuramo hannde amin nganndi omone jillu toon to leydi espagne mm. ɗum noon min calminima kanko ceero muuro ceeo mumtaka ɗa ha kanko tigi tigi e jambareeji o ñemtini noon taani ko ceeho ma nono ceeho mo tan futtete soono yahanno ɓe mbi jontaɗo yeeweteake ceeno nu sohnotoɗa hanoon yewetake amin gandi seydi sadi abba en e waɓe no bouda samba almani en e waɓenen e waɓenen foof machallah ina gonde makko amin calmini min juuramo ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe min bandiramoɗo ha saaha goɗɗo inchallahu taala hasa assalamu aleykum moɗon wa rahmatullahi taala wa barakatuh allaji maligay malig allah reni allaji maligay calaganaɓe jaɓima jimale gai diaspora jabima farase na be jabima espagne jadi, alaji male gay. seydi gay, min beltima hmm. hmm. ya allah ne andi kadi a dañat saabu a waɗi diaspora no feewi a yirlima aduna a waɗi europe a di amérique a waɗi wiide dubai a waɗi afrique central sa ture ture ture ture ture suka labore du gaduru fodde ture mhm. gondidol aji maali geyoro mhm. a ah, fuuta jaɓi noon kadi podor dañi madino waji mbiyata ko leader gonga podor dañi madino mbarodi mbarodi mhm. nan ara e moɗon wiyete podor o wumma podor o yaaha matam o ummo mataw yaha bakel o on toon o faya tambacounda o astamaji no wiite ziguinchor o faya kolda e alaji malik guey yo allah wallu amin ya ilahi amin